3S Pro. Modou Lo ëcc champion ba ngi noonu ëcc Modou ngi noonu ëcc sama waa ji le roi des arènes mbër noonu Boy Petit Lo le grand champion ca makan gis nga Petit Lo jël bu rëy bi nee na jël bi Modou Lo moo ko jox le vainqueur nee moo jox dañuy wax téléphone te xarañ a ngi noonu. non moom aussi nekkul mi doog a ñëw Saint-Louis Petit Lo waaw. dem nga fépp bii mooy bi mooy bii mooy sa ñaata sa ñaata voyage mooy sa ñaata voyage Saint-Louis première fois ou bien première fois. kon yow kii nga Dakar nga fi Dakar. acca loolu waa ngi nii acca Modou Lo tey ba xarit ziar nañ la ba yaa ngi si jàmm saa boo leen bëggee kii yéen ah. ak pont bi nii <laughs> non archive mu woon waaw moom moom mi moom mi xaar gars yi sàmm léegi ma ne foto photo te mu doon Kalidou Kalidou Modou ngi noonu te mi ngi yëg jëm chambre am la jëm ànd ak ñoom Petit Lo ñu doon di yëg door waa des arènes

Ah. Balla Gaye 2 ngi noonu ànd ak Boy Genda Boy Niang ngi noonu borom bu jeexee jeex na Balla Gaye 2 non damay damay filmé ma nekk vidéo Boy Niang ngi noonu borom bu jeexee jeex Modou tay si nga reng jàmbar yaa ngi nii champion yaa ngi nii voilà yaa ngi nii champion yi waaw doon nga yëg Balla Gaye champion wala kan la ñu gis nga oto Boy Niang wala la Balla Gaye day yëg kon lamba yéen ñi wax yéen a xamul booy ngi noonu borom bu jeexee jeex ngi noonu Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 na nga bàyyi xel Macky Sall yaa ngi kaasa askan bi yow yaa ngi kaasa askan bi yaa ngi bëgg a bàyyi Balla Gaye ñu ngi noonu yéen doon kaasa askan ngir yar rek rek kàddu yéen rek Aco mi ngi noonu Assane ay dawal oto bi ma kenn booy ñaa ngi noonu si kanam ah doomu dëgal bee ngi noonu doomu dëgal bee ngi noonu doomu dëgal bee ngi noonu Aco Balla Gaye 2 ngi noonu wàcc na vidéo wala ngi noonu Omar a ngi noonu Doudou eh. Ba ngoog Kara Dollé ak Balla ngi fii Saint-Louis xool leen ñu ngi Saint-Louis bon bay gi ne macha allah hmm, benn dëkk ñaari gaar sama ñu de garage daa bëgg dal doole Balla Gaye 2 ñu xool ñoom ñaar

waaw doole ngi noonu laal xataanam bu baax jàkkaarloog la Lion Balla Gaye 2 laal blouson bu baax nga soof waaye lan lu yow lu mu yow nu ni sama bopp mooy moo a lu muy dama ne comme lu mais yow tamit dina mën ngaa wax ci yàlla ngeen dina defoo ci dara. non ko jekk de. Kara daa mel dañ moo tax instant yii moom. bu bu di ko jël ñu